sont des propos de satisfaction et je voudrais vous dire oh combien nous sommes de vous ici à Mbacké. La région de Diourbel, la faveur de cette manifestation, et se retrouve aujourd'hui à Mbacké. Honneur ne saurait être plus grand. C'est pourquoi il m'est particulièrement heureux de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à nos illustres Je pense que la présence remarquée et remarquable de Seigneur Abdourahmane Paquet et de Seigneur Mamour Paquet suffisent pour rehausser la paix de la célébration. Sëñ Mamour Mamour yi lay bëral yow de sant sant bi ñu fekk yi fi nekk yëpp yow wax na kat tey ñu wax ndax am nañ mbégte ndax it ñu ngi doon gis ndaje mu mel nii bu ñu récompensé xale yi dàq jàng ci région de Diourbel am bac am mention mention yokku ay jamono. am na tey jii Mbàkke région bi yëpp am Mbàkke bi ñuy wàññi mention yi du jeex loolu nag seen njàmbaatam moo leen ko may seen encadrement waajur moo leen ko may waaye également le bon enseignant qui est dévoué et qui a de satisfaction et en parlant du bon enseignant je tiens à rendre un hommage mérité

teewul ñi nga xam ne amuñu mention am nañ bac ñoom tamit ci lañ bokk mais dañoo muur matale ah. loolu tax tey ku mel ne Fapal convention du Baol mooy njiit li mais ñun ñëpp ko bokk ñoo ko créé doo wante daf ci nekk koo xam ne daf ci gën xelam xolam ak alalam di ko ci def te bu ciy def xel bi day xalaat mais xol defe naa exemple la ci région yëpp wax Baol wax Sénégal tey lii dara motiver ndaw ñi waxoon naa leen keroog bi nga xam ne euh, réflexion école Mame Mor Diarra na bi ma demee bi ngeen ko inauguré ba na bi ko visité bi ko duggee ma ne leen vous êtes la seule chose du Sénégal ça veut dire des jeunes éduqués bu leen jàngalee ñu am xam-xam ñoom ñooy suñu richesse tey pétrole beeg gaz bi ak or yëpp baax na ak fer mais ndaw ñu jàng il faut ñu am ko ndax bu ñu jàngee Serigne Touba loolu rek la santaane ci ndawam. dana xale boo ko amee ko wax dëgg yàlla daanaka bu koy yar ci xam dara xamul dara doo mën defar sa àdduna doo mën def sa yoo mën fi am kon nag lii dañ koy saluer la ko defal defe naa tey mooy édition bi édition yi dana am yeneen ñëw gis nga kon nag moom motivé jeune nañ leen gën a motivé dañ leen ci njàng bi yar xamal leen dara boo xam-xam bare rek résultat na mais saa bu wootee lu mu def ñun danañ topp ci ginnaaw parce que sama sama mag sama mag la sama xarit la ñu bokk lépp effectivement kon nag bu wootee ne yëkkati na nangam joxe ko ma dama war a yëkkati dama am ak teew c'est un c'est une somme boo xam ne bon c'est infime mais quand même ça peut servir à quelque chose loolu lañ yeneen yi ci des ñu koy def ya am na yoo xam ne on le fait dans la discrétion bon kenn du ko wane mais am na li ñuy wane li ñuy wane Matar moom mooy mooy wane loolu li ci des moom Euh, dañ ci sant bu baax pare di ci am contentement bu baax a baax ndax li dafa am solo lool ndax day bokk ci nga xam ne day motiver élèves yi pour que ñu dem jàngi xam ni tamit maanaam bat nekkul ne da ngay dem ne dama war dem pour wuti bac maanaam pour réussir rek maanaam damay général mais nit ki dafa war a am objectif dama war a am mention ma pour ñu mentionné ko pour bokk nañu ci c'est partie des meilleurs jàpp naa loolu dafa nekkul am solo lool te itam dañuy sant bu baax waa convention du Baol ndaxte lii jàpp naa ne lii lu bees la te kon danañ dem ba xam ne kon Baol kat am na ñoo xam ne ëllëg ci biir incha la danañ dem bokk ci nga xam dañuy bokk ci leader de ce pays là loolu mu nekk am solo tamit ñu dindi li nga xam ni yeneen région yi dañ koy xalaat ci Baol jàpp ni Baol kat moom euh, maanaam alxuraan nañ xam dëgg la baax na diine ji da nga xam dëgg la baax na waaye itam ñu xamal leen tamit dañoo man alxuraan ji mën diine ji tamit di génn ci lool dem di concurrence ñoom ci la xam ne ñoom ci lañ mëne muy tubaab bi ak nasaraan si kon lay am am solo bu baax ci distinction yi bon dañ ciy jàngee maam mën na yoon ne révolution intellectuelle moo tàmbali am ndax liñ daan sànni waa bool lool jàpp naa ni dañ naan dañoo yàgg a des si wàllum jàng ak jàngate ginnaaw dañ yàgg a des ginnaaw tey dañoo dem ba xam ni kat bool gi am nañ fi tàmbali juddoo ñoo xam ni mën nañoo renverser a tendance ndax ñun am nañ ay prix ci concours général niveau national te mu ñëw di ñu sagalal ci bool kon gars yi dinañ xoolkat li ñuy wax ci moom mi ngi tàmbale dëgg bi daal mi ngi tàmbale yàqu na si gàtt ni ko euh, Moussa waxee léegi nii moom euh, dafa mel ni ak ak cant la bu rëy moom moom mii comme ko waxee moom am na mention moom mii am mention assez bien moom mii ana euh, may may Diop am mention bien kon donc deux mention bien trois mention kon loolu daal moom moom ak seetlu ndax déwén nag daaw daaw ci ci ci heure bii amoon nañu benn mention très bien quatre ak trois mentions ak bien amul si ñaari ñaari élèves yoo xam ne moom ils ont réussi au concours santé militaire am ñu ñu réussi au concours EPT ak SPECT kon vraiment moom li ko wax léegi nii maanaam tout mi émergé wàllu wàllu xam-xam danaa fa di wax ni ma xale yi am ndox moom moom amatul rek di di di feneen lépp lu am centre de centre de de de xayra kenn am na am na fi série am na série S am na fi S2 am aussi L2 ak L2 kon loolu yaakaar moom mooy li ñu am ci kii li di war a moom rafet na. lépp la xel donc ñu ngi gërëm di sant salaam dégg nga vraiment rendez-vous salaam bu ba am lu am loolu lépp lii yàlla yàlla na dafa dogal daara yi mbindum loxo càmmoñ mi dugguñ ci tukki yi tukki ak bi ñu gis moo daal ñu amul alluwa te nekkuñ doon bi ñu nekk dafa tax ñu jàpp ne jaadu na ñu def lii pour euh, xale yi bëgg am njàng bi dañ yi mais mag ñi xam nañu ne Bawol euh, Njàmbur Saalum partout il des gens qui ont pris après aujourd'hui milliardaires malheureusement quand on a beaucoup d'argent et qu'on n'a pas de savoir nécessaire ni xam-xam bu ñu ko dañuy fonctionner avec le cœur, toujours avec le cœur, finalement, on finit par tout perdre. Et malheureusement, beaucoup, non seulement on dañu dem ba tam tam tam de mais bu koy def fekk ni seen doom yi ñu di jaaw ba nga xamante ne bii de amatuñu amuñu amuñu xam-xam ba amatuñu alal bi muy tumurànke ci ñoom loolu moo tax ñu ne premier lu mel noonu ñu gën a xamoon xale yi ne mag amoon alal te ñàkk lii prouvé ne ñàkkoon a xam moo ko waral mooy ñun fi boo ko doon nekkal ay libaane ay français te gisatuñ leen fi mais ñu bokk parce que dañoo fay ñoom itam non ñoom gën a baax seen njaboot yi industrie yu bari ñoo ko yoree euh, Dakar ay ay ñi ay ay restaurant de fii xam-xam daal mooy li nga xam ne aussi dama koy faral di wax. doomu aadama ñaare bu amee soxna wala mu am ñu jigéen moom borom kër ba yàlla dogal mu tabax kër amul njaboot leen jënd yére day daa defeen tëñ dëkk yi e, e, e, loolu mooy di gën a ndaw ci waajur ba defal doomam di ko trouvé mooy ñun tey dañ xamal ko tuuti ñu ngi soppi suñu dëkkukaay di soppi suñu yére di soppi yi ngi di suñu yëpp ñu koy soppi mais xoolal mala yooyu ba àdduna soo ba léegi daan am la ñu am nañ daan dunde la ñu dund na doxee benn lu lu développement nekkul ci ñoom donc il faut vraiment que xam ne bañ sa doom bi amel ko ak dafa bi Xaadimu Rasuul sant ñu leen ne duñu liggéey tey euh, loolu moo fi nekk euh, tedd ki Serigne Mountakha Bassir yàlla fi yàgg te wér si ngeen université bi muy teg xam-xam-xam rek tax kon nag xam nga ne njaboot yi ñëpp wut nañu xam-xam donc bu koy defar daa bëgg ñëpp am xam-xam daan moor moom Serigne Mourtada xam nañ ci bi ci Abdourahmane ah, moom da cee da ko da ko dafa nekk ak ñi sax jullit dañ daf leen bi jàppale ñu ma dëkk à l'étranger di fa di fa fa fekk benn ay teraanga moom dafa soxloon mooy xam-xam bi nga xam ne bi moom mënul ñàkk suñu borom dafa mat li li ma lay wax foofu mooy eh, tey li li nga xam ne bi moom may ñu mën ko dañu soxla ko moom ni ñu koy def waaye li mu ñu may ñu mën ko duñu ko eh, dafa nekk loo nga xamante ne bi mooy sàmm doomu aadama mooy sàmm am réew mooy tax nit ñi mën a déggoo waaye bu xaw amul day xaw a mel ne ne doomu aadama ji nit day na ma yàlla baal eh, gis ngeen ak jur eh, léeg-léeg kenn ko yor ak yar di di di ko sàmm parce que ñoom mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu amuñu code bu ñu bu ñu leen tegal ñu ñu war ci eh, tegu loolu moo wax ndax doomu aadama nag moom. xam-xam day xam ne nekk morom nga xam ne aqi moromam tedd ki suñu Rahmaan moom bi nga xam ne yàlla dafa dogal euh, ñu xamal ñu ndaw yi am na bi ñu am ni ñoom wax ko ne ko comme yaay suñu président dona euh, dañ leen a bëggoon a defal moom daf ñu wax ne loolu lu baax am na ak suñu maam moor moom xaadim yooyu moom suñu mënta suñu mënta am xaadim yooyu amatul war xool ci la lay dund fi di taxaw fi suñu ànd xaalis fi ak ñeneen ak ñoom ci ak ñeneen na ñoom allah ñu ngi sant loolu loolu moo mooy li nga xam ne bi suma réeru ci question bi moo ñu motivé dañu wax ne dañu waxoon ne amoon juróomi téeméeri nit ak juróom-ñeent ginnaaw bi ñu ne ñu mën na six cent personnes waaye yàlla dafa defoon nag sóoraale woon lu ëpp loolu ndax dana woon conseil bu ñu ñu ñëw am ñu jox am ñu jox ne loolu ñëpp ñu wax fi loolu ñu war a am dinañ ko am commencé nañu loolu ñu ngi ci yenn activité ñu ngi na communiqué gis nañu ne bii moom mooy li mënta li ñu mënta ñàkk waaye boo xoolee président Abdoulaye Wade buñ ko nekkee yore réew mi commencé nañu lool defoon na sama dañ jàppoon ne démonstration de force la bool bool yi dañuy wane parce que dafa naa ne mooy la masa daje woon tey ñu ma xam Mbàkke teetuñ suñu bi mësul am Sénégal à part lu mel ne gàmm wala magal Touba loole day wane ne bëgg nañoo ànd bëgg nañoo bëgg nañoo dimbalante ndaxte te bi bien dimbalante il lu am solo ñëpp ku xool sa morom xam ne mën na man de soxnaa ne bi at gëm naa ne ñeneen ñi koy noonu la bu fekkee ne jéemu ñoo ànd di dimbalante defen ne tey jii kenn ku nekk da nga yor nga gis ko defe yow rek yaa wala yow lañ yaakaar ba nga liggéey ci ñeneen ñi l'apport des autres li ngeen mën a andi boo ko ñàkkee doo dem moo tax commencé bi ba ñu ànd di leen yëpp nag ba ci sax na ñun sax sénégalais ci bitim réew dañuy soxla ñu leen soxla